sant yàlla bu baax nag ci doon gi ñu doon taalibay sëriñ Touba ndax li tax ci doon doon gi ñu doon taalibay sëriñ Touba mooy dañoo jóge Touba dem Thiès ku ñuy wax monsieur le ministre docteur Pape Amadou njaay docteur bi nga xam ne nii dafa yàgg doon suñu docteur docteur bi nga xam ne nii dafa yàggal jàppale jigéen ñi docteur bi nga xam ne nii moo daan jàpp jigéen ñi di leen defal éco di waxuma éco ba day xool la xew ca kër ga. kon yow Ndiaye tey loo am danga koo mérito. tubaar fakalla macha allah la képp nga jëf la la yàlla fay. te dañ ci xam dara ndax lii lu jafe la ministre lii demandé woo ko ñoom jigéen ñi accès Touba yaa leen lebal ker ñu ne dañ lay fay guddi woo la ne la ministre dañoo bëgg nga ñëw ñooy def suñuy dem suñuy déplacement nga fekk ñu biir Touba. saafonte ndax lii duñu yàgg a bëgg la lu ñu yàgg lu ñu namu la di ko xuloo tubaar fakkaat la kaay xuloo di xuloo naan kaay ñëw ci ñun man mosumaa gis loolu ngeen def seen hôtesse yu jékki yii ñu ne jell ngeen def seen transport ñëwal seen bopp kenn woowu leen yéen woo ministre mu ñëw mm-hmm. kon ministre lu mu leen lebaloon tey ji yaakaar naa fay ngeen ko ko kon yéen ay gor pire ngeen madame la ministre mm-hmm. ñu lay wax na ñun jigéenu accès Touba ak jigéenu departement bi yëpp am nañ problème problème bi ñu am fa monsieur le ministre jaar bëgg nañ ngeen jaar fa nga xam nañ ne yow boo taxawee ne di nga dooleel sa góor war naa mën a ne ndax temps seer na te xam nañ ne temps amul te dangaa dagg sa yitte ñëw teew fii ak jigéenu accès ma bëgg yéen jigéenu accès yëpp ngeen jug tàcc madame la ministre mii te xam ne tey jii yaakaar naa lépp li ngeen doon jooy moo xam ne nii dafa jëm ci wàllu financement ci wàllu yaakaar naa tey solution dina fi ñëw <laughs> solution dina fi am tey bu ñu amee fit mhm. jël un milliard ci DER mhm. remboursé mi huit cent millions bu heure bu ñuy ñëwee nañu jàmba ay jàmbaar ngeen waaye nag am na lu des mhm. ndax xaaju accès yëpp dugg ñu ñu ngi taxaw di xaar kon jigéenu accès soxlawaat nañ financement soxla nañ ku leen jàppale ñoom nag ñoo waxal seen bopp ñuy dégg yéena fi woo monsieur le ministre woo fi madame la ministre monsieur le ministre madame la ministre dafa am ñoo xa koo xam ne nii ma nga ca kaw ni leen jàkk jox leen jox leen ay bëtam jox leen ay loxoom ñu moom la ñuy tàccoo di ko xoole loolu nag am na lu joxañ bu muy wane yéen a fi woowu mu le ministre kon ñu ngi ñaan yàlla liñ fiy sa liñ fiy jàmbat bu saafara woo got ca wax mhm. mhm. ministre nag lépp lu leen mas a wax def na ko yéen a ko fi woo maasàllaa dal tàkkut jaasi jibut dara xewut ndax nag li ko ko may mooy dignitéem teeyam lu mu wax def ko lu mu wax di te dellu ginnaaw maasàllaa mu ànd ak na ki nga xam ne mooy suñu première dame ñun na muñu première dame muy ma Adja Madeleine Diagne waaw waaw nguut ak yegg maar barke yonent bi amul jàmm amul salaam minute mi ngi woote bu sa fu ngeen bu sa lan ngeen di def di sant nag ki nga xam ne mooy Yacine Diagne di remercier ki nga xam ne mooy Soxaane madame Diagne kon Soxaane damaa bëgg neewoon nga bu ma la présenté da ngay wàcc fii ñu jox la sa kado ndax nag liggéey bi yàllal yàllal basan gi tàllal ko ne la lépp tàlli barke yonent te dara ñaaw da ngay ñëw taxaw fii sama soxna président uh-huh. muy Adja muy Max nga xam ne damaa féetewoo macha allah ku la féetewoo nga nuyu jigéen ñëpp ndax tey dañu nekk ci weeru jigéen ñi jigéen ñi nag ñoo yor kër yi di kër-kër yi jigéen ñi ñoo yor njaboot gi di leen boot jigéen ñi ñooy ñaq di jëriñ askan wi kon jigéen ñi jaaraama jaaraama jigéen ñi ci laay duggee ci ñi nga xamante ne mooy madame la ministre Victorine Ndeye ministre de l'économie solidaire et de la microfinance yàlla def na président de la république suy tànn da koy xool muy ko xam ne ku am njàmbaar la ku bëgg développement su ciy wax du ànd ak sagom ma wax leen ne que dama bëgg ngeen jàpp ko bu baax te ne ko jàkk ndax jàmbaar la te am na yéene ci yéen te yéene weesuwul lii jamono ji ni mu xate mu nekk ci weeru koor bàyyi yépp ñëw ànd ak ñun taxaw si waxtaan ak yéen déglu seeni mbébét su ko demee togg ko ba mu ñor su dellu siwaatee dina leen ko indiwaat ci indi indin boo xamante ne yéen ñëpp di ngeen ci kontaan kon merci encore une fois merci madame le ministre de l'économie solidaire et de la microfinance ànd nag ak directrice du fonds de la microfinance kon tey xam nga ne jigéen ñi ñoo aye ma wax leen léegi for for naa ko ci wewu bëy madame la ministre nee na ci nuyoo nuyoo jox na leen 10 million yéen waa accès ma leen nag loolu nuyoo la waaye ndax dina liggéey si ak yéen ndax dafa am lenn loo xam ne dafa amoon dafa amoon muy tuuma boo xam ne dañ koo tegoon ci ndoddu waa Touba ak jigéenu Touba ñu bare dañ noon ne duñu dugg financement Touba ndax waa Touba ñu fay waaye ndokk ba waa access wuyoo ndax tey jii ci Sénégal ba mu daj waa DER leeral nañu ne yéen yéen a fi dàq fay moo tax ma ne yéen ñii xam leen ne ci li ngeen di liggéey yéen a ngi liggéeyal sëñ Touba ndax yéen a ngi teggal Touba waa jabootu ko kër sëñ Touba. ma nag li leen yàlla may li leen yàlla jox ba ngeen yegg si fii olof Njaay nee na jubbu bi tax ñu xàmmee la bu ko wat ndax soo ko watee kenn dootu la xam xàmme ne leen ci jub. jàpp leen ci jub bi bu leen ko bañ moo tax ma daal di gën a wax di remercier délégué général de la DER madame Abissé ndax nag lu ji njàkk moom la ba ma koy woo ne ko dama bëgg ñu ubbi fi benn ki nu mu ci nano crédit point nano crédit wóorul woon ci moom parce que li ma leen wax yépp nga xam ne dañ ko doon wax ci jigéenu Touba waaye dafa xuus waaye ba mu xuusee da ngeen ko wuyu loolu moo tax yëf yi yegg si fii kon madame Abi Seye ñu ngi lay sant di la gërëm président la république li mu teg ci sa loxo yaa ngi koy teg ci yoon wu rafet waaye nag yemuñu bëgguñu nag ñu yem ci nanoo dañoo dugg bëgg dugg ci soobu ci crédit yu mag yi ndax wan a ngeen seen capacité ci nano crédit bi nan la ñuy engagé woo ci ay projet yu am solo projet yu am solo parce que dañu am yéene ci yéen président la république Macky Sall dafa teg ay levier maanaam ay jumtukaay pour que yéen jigéen ñi kenn du leen raw waay jumtukaay yooyu benn ci moom mu ngi tudd nano crédit mooy DER mos ngeen ko xam ngeen lu mu saf amati na beneen boo xam ne formation la 3FPT ak ONFP mos ngeen ko xam ngeen lu mu saf diplôme yi ngeen daan joxe léegi formé wu leen am financement waaye tamit bëgg nañu woo waa promise ñu gën a jege si ndax lii ngeen di liggéey dafa ànd ak li promise di dox mu jàppale leen ci ay équipement ndax ku gis ñii wane jigéen ñi xam ne ñii ku leen jàpp ci équipement dinañ liggéey lu ëpp li ñu def nii am na tamit benn projet boo xam ne ministère du commerce moo koy sumb mu tudd Fra pour tous Fra pour tous boobu incha allah bëgg naa Fra pour tous bi ñu dooree ko Touba gii waa Touba yëpp am seen Fra ndax lii ngeen di liggéey dafa laaj ngeen war a am Fra accompagnement bi dinañ ko def madame Diagne mi ngi nii seete madame Diagne ak seete Faly Badiane ñii ngi toog ak ànd ak ministère du commence dinañ ko taxaw ba Fra pour tous boobu nga xamante ne ministère du commerce junj na ko ñu yaatal ko ba jigéen ñëpp am seen code barre am seen Fra. pour que mën a jaay lii mu jóge ci Sénégal jóge Touba daal di dem ci sous région bi dem Europe dem États-Unis war naa mën a ne te mooy li nga xamante ne moom la ñu leen